presse bu Madrid maanaam presse bi ne Espagne sax bu mer ba futt benn bi coté kontaan côté Barcelone beneen bi moom danoo mer ba futt ci seenu équipe ndax équipe boobe danoo jàpp ne nag la leen taxoon a jóg danu koo mooy gars yi info matinal seetaan ngeen ko revue de presse bi nag Alaaji Malick ci kàddu gi ñu gërëm leen sant leen sàkku ci yow mi door a ñëw ci seen bi nga abonné ndax abonnement boobee dana tax lu ñu dugal nga man ko coppate ndànk revue de presse bi nag xam naa ni Euh, gars yi mer nan bu baax a baax ñoom supporter waaye ñu déglu yëgle bi te ñëwaat sëñ Abdou Salama Abdou Salama borom jamono borom jàmm ji nga xam ne daanaka dafa ñëw uniquement ci askanu senegal ngir jàppale leen ci jafe-jafe yu bari yi nga xam ne mu ngi am ci réew mi moom nag ñaan yàlla dogal mu am lum ci xam ginnaaw ba mu jàngee daara ba per daaray boppam loolee nag xam-xam bu mucc ayib moo koy maye mu ni ma alaaji Malick askan wi nag dama leen bëgg a jàppale ndax naxa bi dafa bari lépp loo xam ne jëm na ci liy xew ci jamono maanaam feebar bu mu ci mën di doon yaakaar naa ne bu ngeen ci fekkee lu mu ca man la dana ko ca def bu fekkentee ni tamit nguur moom daanaka da cee teg tànk mi ngi ciy am ay résultats yoo xam ni loolee amul benn werante ni da koy da koy lijjanti ba mu toj koroj moom moomee mi ngi ci 78 433 78 78 beneen bi ci des mooy bu ngeen jokkoo moom ci li nga xam ne mooy ndoxum sidi ak lépp loo xam ne jëm na ci xeetu rek maanaam ak aaru aaruwaay maanaam képp koo xam ni bëgg na laa ah, di nag def naka sudul noonu maanaam liggéey bu jëm ci yow loolee day wëlbatiku dem ci moom loolee jàmbar la ci bu baax a baax beneen muy mbilum maanaam bayre dikk naa ci léegi waaye dalima ma nga ko gën a yaatal ndax fi mu toll jamono ji kenn comme ci man di doon yaa ngi doxal say affaire dëgër loolee ñàkk bare la doon waaye bayre bi dama koy gunge ak kaaraange loolee lépp mboole seen ci lépp lu ngeen soxla man ngeen a jokkoo moom moom kilifa ku sell ki jërëjëf Serigne Abdou Salama mi nga xam ne nag daanaka euh, gis ngeen ko taxawaay bu am solo bi nga xam ni moom lay def gars yi derby classico bi waaw maanaam derby la ñu boole ak li nga xam ne daanaka moo nekk lii la di match bu Ligue des Champions ñaari match yooyu yëpp Real Madrid. amu ci benn victoire benn bi ab défaite la mu mittee mitti benn bi mu jële ci ab match nil benn ak benn kii nag ñëpp yërëm ko muy Bellingham mi nga xam ne nag moom daa bëgg Real Madrid ba gis ngeen ni bu amee victoire mbégte lay àndal waaye nag fan yi gis ngeen ni wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla doy na waar doy na waar ci côté am doy na waar ci côté Real Madrid beneen boo xam ne sax dafa jaaxal gars yi muy Atlético mi nga xam ne dañu ko wullee wulli ba mu nooy maanaam ñeenti bal ci dara loolee nekk nag lu supporters yi cool généraux yi nga xam ne donte bëriwuñ fii ci dëkk bi sax waaye bari ñu ko metti lu lool lool ndax yaakaar naa ne football espagnol moom démb xam naa am na yeneen yëglikaay yu ci ñëw ñaatal yaatal ko waaye ni mu demee moom xam naa ne Barcelone moom moo leen sauvé ah, li nga xam ne mooy match bi mu football bërki démb ndax match boobee yaakaar naa ne am na ci ndam te it am na ci score bu am solo bu mu teg ci taabal ji loolee nekk lu ama am solo ci li nga xam ne mooy football espagnol football espagnol bu nërmeelu démb fële ca France ak ci gox yi fasandikoo yi loole ñaaw na lool waaye ñu jàll ci beneen yëglekaay ah, boo xam ne nag moom gis ngeen ni ñetti ah, équipe bu espagnol yi la indi maanaam ñetti équipe yëpp kenn kum ci man di doon daga nërmeelu mu njëkkee ko nag ak Girona mi nga xam ne moom sax moo ci gën a méttile ndax ñeneen ñi dañoo génn ndax moom dañ ko fekk ci biir ab terrain ci biir seefam ci biir ay supporteram daal di koy gañe ñetti bal ci dara loole nag supporters yi ak wéer sax da doon jooy ci biir terrain bi ndax nërmeelu googee dafa métti nag fekk si la dóor la dem ñibbi si beneen bi ci topp ngeen gis ko muy si Junior ak ñi mu àndal ñoom ñu gañe leen benn bal ci dara du ay tëcc waaye nag la ca gën a métti moom laa dikk ci yëglikaay bi di marka mu yaatal ko ñeenti bal ci dara ñeenti bal ci dara mu nekk loo xam ne lu kenn mënul woon a na ci équipe bi la nga xam ne moo nekk équipe bu lii di Atlético Madrid bu jënd ay suura fu ne mun dabaj dabaj dem fa dajlu ne ci biir terrain bi loolee métti na ko bu baax a baax beneen yëglikaay di sës ni mi nga xam ne nag bu wax naa leen ko waaye yëglikaay bi da ci door a ñëw maanaam xaatim na ab contrat jolal solal nan ko mooy Barcelone xam naa match bii di ñëw ci weekend bi bu ànd ak borom bi dana mën a commencé bu fekkee inscrire nañ ko ci li nga xam ni mooy match yooyu di jàppale ab équipe am waaye ca kaw yëglekaay ba xam nga ni du fàtte mm, nërmeel bi nga xam ni moom Real Madrid nërmeel na ko ginaar yi sab loolee mënta wute ak yëglekaay yi mën nañoo ànd ak sport mi nga xam ne tamit gis ngeen ko sport li mu ñëw match bi nga xam ni Girona à domicile moom la doon football gorey naa yi nag dañu leen a jàpp wal leen ba ñu nooy loolee gis ngeen ni ko yëglikaay bi indi ñoom it ñu mu jooy ba sonn wàññikuwaat nag xam ne àdduna maanaam défaite ak victoire ñoo ànd ñu wàññikuwaat daal di ñëw ànd ak supporters yi daal di tàccu dem seeti la neen fekk booba ca kaw yëglikaay bi tamit maa ngi fa gis si Junior mu mer ba futtu maanaam ci victoire bi nga xam ni ab équipe am ñàkk na ko victoire boobu nag ci profilu kile di Lille bi nga xam ne ma nga nekk ca nga xam ne ñoom it yaakaar naa ne soriw noo ñu jël coupe du monde boo demee dëkk ba ma ngay toj na ngay sar xoole ndax dóor nañ Real Madrid moom loolee nekk na loo xam ni lu neex la ci ñoom gaa yi revue de presse bi foofu lay yam dañuy joxante digg bëccëg gi ci xibaar yooye nga xam ne dana am bu benn waxtu jotee ba tegal fanweeri minute ci Aladji Malick TV bu ko defee day nekk en direct ngeen mën ko am en temps benn waxtu bu tegal fan fanweeri minute ah, ci xibaar yi nga xam ne moom lañ dëgmal gaa yi jërë ngeen jëf ànd bi am na solo kontaan nañ ci ñëpp nag bàyyiwul kenn jër ngeen jëfati